ñu gis la père nga jóge ci Youssou Ndour ñëw di di guitare. Coumba Gawlo lan moo waral loolu. non jóge ma si Youssou Ndour di di ko Coumba Gawlo moi je suis là pour toute la musique sénégalaise. man je suis ouvert à toutes les collaborations pour le bonheur de la musique sénégalaise je ne suis pas un musicien boo xam ne Djibi Mbaye pour diw bu Djibi Mbaye laa pour non je suis Djibi Mbaye du Sénégal man ku ma soxla ci euh, musique sénégalaise dina ñëw li nga xam moy li nga moom ci man ma jox lako parce que bu ma fàttalikoo ñun biñuy ñuy nek biñuy nek xalé <clears throat> biñuy commencer musique amuñu won euh, yenn euh, support yi ndax bobu musique agul won fi bo gisé ko am instrument pour nga gisaat ko c'est son problème amuñu won studio amuñu won yi amuñu won la donc comme ñun yalla defal nañu ñu ñu ñu bay suñu war ci affaire ba yalla baxé ñu yeen affaire yi on est on est là pour pour aider euh, pour aider les jeunes ñi nga xam ni fi ne soxla nañ suñu expérience mais ñu baaxee leen ko ñi ñi nga xam ne dañuy bëgg léeg-léeg def yenn soirée yi bëgg ñu ci invité mais c'est un plaisir c'est un plaisir mais je suis là je suis un musicien sénégalais tout court je suis musicien d'aucune formation. ñu ne Youssou Ndour da nga bëggoon dellu ci moom mu bañaat loolu am na wala am. ah yëgagu ma ko de wax dëgg yàlla je n'ai jamais fait les démarches pour dellu fa waaw. non du question du ma dellu du dem mais moom nekkugul ci musique dafa ne ci politique. Ouais, mais en tout cas, mon ma musique, c'est ma musique. Je me sens bien là où je suis. Je suis bien dans ma peau. Je n'ai aucun regret, à part la fin tragique du Super Étoile. Mais j'ai aucun regret. Musicalement, je suis heureux. Mon musicien là, je musicien, moi, je sais jouer. Man, bu je suis des jouer ay Pape Diouf ay Pape Cheikh ay Boy Wally fu ma jaar jouer c'est pour ne continuer à être un musicien un musicien mooy ko xam c'est comme le sport un sportif de haut bu toogee six mois entraîné mais bu taxee bu dikkee bëgg a def benn course day am problème bu bëggee ñëw def benn <laughs> Balla Gaye tey fii bu toogoon six mois bëriwul bu duggaatee ci làmb ji day am problème musicien da nga di jouer moi je joue tout le temps. Je suis dans mon studio, je joue, je travaille, je compose pour d'autres artistes, je fais des productions pour d'autres artistes. Je joue avec Pape Diouf, je joue avec euh, Pape Echer, bon, Amé, envie de ci wàllu sekk jouer artiste bu ma neex dem fekk da nga sa kaw seen jël guitare jouer ba sama xol parce qu'il faut pratiquer l'instrument du loo xam da nga koy bàyyi mu neloo di xaar du ko def. mais am na xale yu ndaw yi dama leen un dégg nga ko bu guitare <laughs> mais loolu noonu feebu yooyu yan feebu non du feebu dara xam nga c'est-à-dire euh, musique man pour man li ci am solo mooy nga fexe ba ba di dugg ci xolu doomu aadama yi ni ngay duggee ci xol doomu aadama yi à travers ces instruments mooy euh, di leen jox note yi nga xam moom lañ soxla parce que kii déglu guitare guitare c'est un instrument boo xam instrument corde la ay son la génne kii déglu guitare bëgg a comprendre langage guitare bi boo ko joxee ay techniques yu compliquées du ko mën a xam da nga koy jox ay ay technique terre à terre yoo xam ne dina ko mën a chantonner dina ko mën a woy loolu rek mooy secret bi la leneen. mais est-ce que kek te guitare moom bu ko téyee da nga war a ñëw rek def lu la neex wala dafa am ay cotes yooyu dugal wala <laughs> je ne sais pas. non mais c'est que daa mel ni euh, ma ni la booy dawal avion boo téye sa oto boo mënee dawal oto rek mën nga dawal avion non da nga koy jàng c'est ça c'est dommage loolu mooy problème musique sénégalaise parce que. gars yi du ñu jàng lu bëri ba pare bëgg a tari te je crois que ku ci nekk li ngay def muy woykat bi muy instrumentiste bi muy arrangeur yi muy producteur yi muy manager yi ku ci ne li ngay def c'est un métier ci da nga ko war a jàng parce que mosoo gis benn métier boo xam ni da ngay ñëw jàngoo ko pare ñu tari ko mënta ne donc moi je crois que loolu lu ñu war a jàng la daal te nit lu mu jàng bu ko mokkalee wax fa dëgg yàlla war ko mën tari waaw loolu. mais buñ nee tey que guitares yi dañoo bari est-ce que Père Jimmy mën na utiliser tous les waaw man dinaa jouer gitaar pour man benn gitaar moo am bu six cordes boo xam ni mën nga ci jouer guitare solo mën nga ci jouer guitare accompagnement ak benn boo xam ne quatre cordes la léegi dina dem ba cinq ba six bu guitare basse yàlla def na man man may jàng yooyu dama ko jàng maa ngi ciy góorgóorlu xëy na ci guitare solo laa gën a focaliser loolu moo gën a nekk li nga xam ne moom mooy sama sama itinéraire. mais yooyu yëpp jàng